Derrière Malo TV noo ngi dellusiwaat ànd ak yéen ci sunu jataay yi nu bokk muy jataay liqaat ramadaniya dañuy tàmbali nag dugg ci biir atte yi nga xam ne moo nekk ci biir ramadan mu am nag yu ko lal muy ay atte yoo xam ne yu am solo la maanaam am solo goog yi nga xam ne moom la am solo sax moom la ñuy tàmbalee door a dugg ci atte yi nga xam ne moom la weeru koor am at yooyu ñaari mbir dañ koo séq benn mi mooy loo xam ne dafa dellu ci yéene beneen bi ci des mooy loo xam ne dafa aju ci nit ki ci boppam xam moom mii fan la féete ak lan moo ko war ci koor yooyu ci lañ fas yéene def lenn ci ay jataay yi ñëw ci kanam door caa toxoon ak jëm ca yeneen yoo xam ne ba tey rek dana aju ci biir weer wi yéene mooy lépp moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ne innama al bi binniyat jëf yi ñu ngi aju ci yéene yi ki jëf-jëf donte jëf ju baax la sax waaye yéene wu ca lu baax kooka du ca am dara kon nag yéene lu bon moom taxut ñuy wax yéene bu duggee ci jaamu yàlla da koy wéral bu ca génnee da koy yàq day mujj aada doon waaye du doonu jaamu yàlla yéene mën naa dugg ci mbir moo xam ne aadala soppi ko mu nekk ak jaamu yàlla ci misaal yow mi doon nelaw nelaw natiiru doom aadama la boo xam ne aada la nit ki mën nay nelaw ren ba déwén du ca am tuyaaba waaye amu ci it bàkkaar nag su fekkee yàqalu ko farata waaye ki nga xam ne day nelaw te yéeneem mooy dafa bëgg a noppalu ngir jóg jaamu ji yàlla nelawam yooyu dañ ko ciy bindal tuyaaba kon yéene dana dugg ci aada soppi ko mu nekk luy indi tuyaaba dana génn ci ak jaamu yàlla mu wëlbatiku yàqu duutu duutu tudd ak jaamu yàlla waaye dafay daal di tudd aada yéene nag day jëfi xol joo xam ne nit ki mënu cee teg bëtam moo tax daanaka jarul làmmiñ di ko tudd ci xol ba rekk la nekk mooy li nga jublu ci boppam xam nga la nga ci jublu lu mu doon moo tax dafa am yaari jeexit yoo xam ne yéene da koo am wenn jeexit wa mooy fixé li ngay def li nga ci jublu lu mu doon xam nga ni ki jóg jëm ca robinet ba dikk yéene jàpp ñi nodd mu ñëw di raxas ay loxoom kooka am na lu mu nar li ne ci xolom bokkul ak ka nga xam ne dafa añ ba noppi jóg ay loxoom niin mu waaxu ñëw ci robinet bi ubbi ànd ak ni ñaar ñépp kat ki xool action bi muy gis benn la mooy ñaari nit ñoo xam ne taxaw nañ ci robinet bi di raxas seeni loxo waaye kii yéeneem mooy dafa fas yéene jàpp dem julli ji kii dafa fas yéene setal ay loxoom kon yéene jëfi xol la loolu mooy genn wet gu am solo gi lool ci yéene geneen wet gi ci des mooy li ñuy tudde almaqasid mooy li ngay def nag la nga ci jublu yàllay kese tax kon yéene ak lixlaas foofu dañoo am ak jote gu dëgër a dëgër a dëgër goo xam ne mooy fésal ne nit ki li muy def yàlla rek moo tax gannaaw boo xamee ne yéen de jàll na nag la ca des mooy waxtaane attey jëmmi koor ci boppam ñu xam ne yéene moom i koor rek moomu ko waaye mboolem jaamu yàlla yépp ñoo ko bokk atte bi nga xam ne ci lañuy jëkk a jëm mooy annaasu fi ahkaami siyaam nit ñi yan atte lañ am ci biir koor nit ñëpp amul benn atte boo xam ne day ñëw rek boole leen ñoom ñëpp waaye nit ñi ay xaaj lañ ay mbooloo lañ ay catégorie lañ ci biir weer wi nga xam ne benn catégorie bu ne wala benn mbooloo mu nekk dafa am àtte boo xam ne moom la ko sharia jox loolu moo tax nu fas yéene def ay jàngati benn benn ba mbooloo yooyu menn mu ci nekk ñu xam ban àtte la ko sharia jox sun mbooloo mu njëkk min fas yéene waxtaane tey jii day dellu ci mbooloo mi ci ëpp solo nga xam ne mooy majorité jullit yi bu ramadan dikkee la ëpp ci ñoom atte boobu day tege ci seen kaw mooy al muslim al baalig al aaqil al muqiim al saalim min al kon bépp jullit boo xam ne ramadan ñëw na nga nekk ab jullit ñaareel ba nga nekk mu mukallaf majeur ñetteel ba nga ànd ak sam xel ñeenteel ba nga nekk ci sa dëkk fa nga dëkk tukki woo juróomeel ba nga attan koor man ko te amuloo ca ngànt kii day koor farata la ci moom goo xam ne sëñu koo bañ a def su ma nee soon na wax lu ëpp farata sax dañ koy wax ndax koor ponk la ci ponki lislaam yi juróom kon day daal di feddali ko ci képp koo xam ne yooyu daje na ci yow loola nag la ko farataal ci moom sax na ci alquran sax na ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boroom xam-xam yi ci mboolem ngër yi itam dëppoo nañ ci loolu sunu boroom tabaraka wa taala nee na chahru ramadan alladi unzila fihi alquranu hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda walfurqaan faman shahida minkum alchahra falyasum borom bi nee na weeru koor angoog weer wu tedd weer woo xam ne ci la ñu wàcce alxuraan alxuraan dikk ngir gindi doom aadama yi nee képp koo xam ne ci yéen teewe na weer wi na ko daal woor teewe na weer wi nag la ci gën a fés mooy weer wi ñëw te fekk nekkoo ci ëpp tukki terme bi loola lay firi ci kaw waaye boroom xam-xam yi nga xam ne ñooy firi day te gën a xóot loola wax nañ ne fa man ko mu shahra mooy képp koo xam ne weer wi dikk na te fekkul mu am ngànt fal yasumhu kon loolu mooy la gën a mat muy aaye ju wér cëng ne képp koo xam ne gis na weer wi na woor gis nga nag benn nga gis ko ci say bët walla keneen gisal la ko loola lu mat a bàyyi xel te wóor gën naa fese ci xadisu bi yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mu wax ne ida raaytum alhilaala fa suumu muttafaqun alayh su fekkee ne gis ngeen weer wi woor leen su ngeen gisee weer wi woor su ngeen ko gisee li muy firi mooy yéen xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi su ngeen gisee weer wi woor kon yow mi ko gisut ci sa bët waaye sa àndandoo ji nga dendal gis na ko yëgal la ko farata ci yow nga woor gisoo ko yàgg sa àndandoo waaye sa biir dëkk bi nga nekk wala biir réew mi nga nekk am na ku la ko fi gisal su boobaa woor war na weesu na foofu ba jéggi frontière yi dëkk bi nga dëkk waaye képp koo xam ne ab jullit la ci kaw suuf boo xam ne gis na weer wi am moyen bu la ko mën a jottali ba mu agsi ci yow nga yëg ko farata la ci yow nga woor moo xam dañ koo jaarale ci ban moyen nag ci moyen de communication yi nga xam ne ñoo am tey ndaxub rajo la ndaxub télévision la ndax dafa doon loo xam ne ci réseaux sociaux yi la wala ci internet wala lu mën a doon lay charte ba daal ka koy jottali na doon ab jullit boo xam ne wax jamuy wax ju mu ne su sukkandiku la kon képp koo xam ne weer wi ñëw na te fekk mucc nga ci yooyu yi ñuy wax muy safaanu bi yi nga xam ne moom lañu wax su boobaa jàppal ne weer wi farata la ci yow kon noonu mu saxe ci alquran saxe noonu ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam noonu la sax it ci ijmaawu mboolem boroom xam-xam yi nga xam ne ñooy wax ci turu lislaam amul kenn koo xam ne gis na ne weer war naa mën a feeñ xabaar ba agsi ci yow nga ñàkk ko woor noo ngi doon waxtaan ci ne nit ñi ay groupe lañ groupe bu njëkk ba waxtaanoon nañ ci te mooy majorité jullit yi li ci ëpp mooy ñi charte yi daje ci ñoom ba koor war ci ñoom waaye am na ay benn benn ci seen biir yoo xam ne benn bi la ñuy waxtaane tey muy ndaw ñi ndaw ñi nga xam ne majeur guñ ñooñu seenub atte mooy koor waru leen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ci xadis ba nee na rufia alqalamu an salaasa yëkkati nañ xalima gi maanaam xalima bind bàkkaar day yëkkati nañ ko mooy duñ ca bindal ñii muy bëgg a tudd nee na ani naaimi xatta yastayqid ki nga xam ne day nelaw ba keroog mu yeewu mu teg cee ne wa ani sabiyi xatta yakbur yëkkatil nañ ko gone gi it ba keroog muy màgg su màggee mooy su majeur wa ani l majnuni xatta yufiiq ki nga xam ne it ab dof la ba keroog am xelam di dellusiwaat kon ndaw li eh, duñ ko bindal bàkkaar ci koor su wóorut itam kon sañ naa bañ a woor koor du farata ci moom mooy ki majeuragul loolu nag firiwul ne du woor ok euh, sopp nañ lool sax woorloo ko saxaaba yi daanañ ko def di wooral seeni gone di leen yóbbu ci jàkka ja ñu yendu fa su njekkee ba bëccëg sax yëg ab xiif ba tàmbali di jooy wala ñu koy feeñal ñu indil leen ay fowukaay yoo xam ne dana leen fàtteloo seen xiif boob yi ñu continuer nekk ca loola ba keroog di jot kon xale bi jàngal ko loo xam ne eh, jaamu yàlla la te fekk nekkagul ci moom farata day tax bis bu nekkee farata ci moom rek daal di yomb loolu mooy xikma yonente bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne gone yi na ngeen leen jàngal julli suñu amee juróom-yaari at eh, nekk ku majeur nag dafa am ay màndarga yoo xam ne charia da koo joxe ni ci lay amee ba ci jëkk mooy génnuk ndox mi ñu ma mani képp koo xam ne génn na ci yow xam nañ ne kii moom major na ñaareel mooy koo xam ne euh, dafa am kawaru naq kooku it ci mandargay major ci la bokk atiya al qurazi euh, nee na bi nga xamee ne banu qurayza muy aw askanam yi nekkoon madina te doon ay juif dañoo dajewoon ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam am yi dox diggante ba xeex juddoo ca nee gone yañ jàppoon bañ daataan rey bu la ñoo rey kenn yonente bi alayhi salaatu mooy wax xool leen ba xam mukallaf la wala déet su dul mukallaf moom dañ koy bàyyi kenn du ko gi ndax xam nañ ne ab xeexam kontul nee na ni leen doon xoole mooy xool seen kawari naq ku ci amut kawar ñu xam ne kii xale la ku ci am kawar ñu xam ne kii majeur na beneen mandarga meneen mandarga mi ci des mooy am fukki at ak juróom abdullah ibnu omar ibnu alxataab radiallahu taala anhu nee ca xeexub Uhud xareb Uhud ba nee na damaa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man kat dama cee bëgg a bokk ndax jihaad fi sabilillahi la nee na booba maa ngi am fukki at ak ñeent nee na mu ne ma déedéet teel na yow mën a goo cee bokk ca déwén sa xeexub alxandaq ñëw ma dellusiwaat ne ko yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa man kat damaa bëgg bokk ren nee na mu ne ma kay mën ngaa bokk ndax am nga fukki at ak juróom yetti màndarga yooyu ma tudd yëpp góor ak jigéen ñoo ko bokkale waaye jigéen nag dolli ca menn màndarga muy bu gisee règle bu gisee regal moom itam daal nay majeur su ko defee moo xam bi mu koy gis ndax am na fukki at wala amagul fukki at wala weesu na ko lu mu ci mën a doon fu mu ko gisee rek loolu màndarga la ci ne moom mi majeur na su fekkee gisu ko it ba gis beneen beneen màndarga ci màndarga yii ma tudd ne góor a ko moom ak jigéen su ko defee su boobaa moom it dañ cee sukkandiku ngir xam ne moom mii kat kon majeur na moom itam kon yett yooyu képp koo xam ne amagul ci yow kooku la ñuy tuddee xale kooku la ñuy tuddee koo xam ne koor waragu ko waaye moom la ñuy tuddee koo xam ne sopp nañ ci moom ñu woorloo ko kon agsi nan fii sun jataay tey di yem mbokki jullit yi ban dajawaat ak yéen ci jataay bi nga xam ne mooy ñëw ëllëg ci kàttanug sunu borom tabaraka wa taala wasalaamu